ku ci am soxna nang ko fonk nang ko wormaal so demé ba bëgg benen soxna na fekk ki nga ñëk yor la la ci war ci teranga nga man kay kay dikkaatit naka su sutura mate nga dor ko def waye dajélé ay nit té na nga leen war sutura la dess day indi ay jafé jafé rek lolit ma fi dink sa bop té diko dink bokki talibé yépp waye yeen soxna yi ah nañuy wattandiku li ma leen di njëkk a dénk wattandiku njabar nana wattandiku njabar ak góor ñi ki ko ci def dem ci ay seet nanu ko bàyyi dem ci ay njabar nanu ko bàyyi am na ci loo xam ne dëppoo wut ak ne ci yàlla rek laa wékkiirlu ci yàlla dong laa fas yéene dox jëm yàlla dong moo may jariñ yàlla dong moo may lor am na yoon woo ku cay dox am na la war nga ko seexlu bu dee la ngay wax dëgg la ci yow loolu kat du yoonu muriit ndax murit moom yàlla rek mooy doon bëgg-bëggam fu mu xëyee ak fu mu gonte moom doo ngay nox nuxi ci xolam it du doon leneen du doon keneen it kon nañuy wattandiku dem ci seet ak a njibar ci soxna yi ak góor gu koy def gu ne ci soxna yi nag lay gën a bare sa borom kër bii nga bëgg a yeew bu ci yàlla àndut mënoo ko mukk ci àdduna yaatalal man dong du wàllu gor du wàllu jullit lu baax des koy bokk kon soxna yu góor góorlu leen takku leen farlu leen te yàlla tax te wàññi fiir bu ëpp gi te yàlla tax njabar du jur dara lu muy rékki ngëm ci nit ki ci digganteem ak boromam nit ki nag bu sa ngëm rékkee ko soo toppee loola danga nga lor sa bopp mën ngaa lorit keneen ka nga àndal te loolee dara jëru ko ci ab jullit koo xamante ni sa boroom kër suñ borom dogal na xam nga ne yor na la nam la war a yore taxawoo na la nam la war a taxawoo lislaam may ko mu am ba ñeent su bëggee wu ci keneen ngir dolli njabootu lislaam bàyyi ko ànd ca te rafetal ca saw àndiin te yàlla tax loolu lu am njariñ la te lu am solo la li ma wax ci góor yàlla yit nit du dajale ay nit te mënoo leen a nit day dugg ci lu man nit day wax lu mu xam te noppi de wolof ko danay wax ni def loo xam wax loo man def loo man ak wax loo xam soo tëddee dana tax neex dana tax neex nelaw du caa génn sax boo tëddee nelaw de waaye boo nelawee say nelaw dana neex wolof léeg-léeg dana wax loo xamante ni mën nga ko seetaan wax loo xam jëf man ak wax loo man ak wax loo xam soo tëddee nelaw nit mën naa di def lum xam di wax lum xam te tëdd du ko tax a nelaw waaye bu nelawee kon ay nelawam dana neex bu yeewoo ci biir nelaw it nelawaat dana ko yomb kon loolu maa ngi koy dénk saa bokki góor yàlla di ko dénk saa bokki soxna yi